bu doon ab sëy la ñu mën ni tas na ci diggante soxna maam xari Mbàkke ak waa Raziat kuréel gi nga xam ne ñoom ñoo lëkkale seen doole te yëngatu ci wàllum secteurum diwlin ci biir dëkk bu sell bi di Touba di fësal ne daal jamono ji dafa mel ne dañoo dénk bukki ay seel ndax kuréel gi kat dañ ko doon xoole surub Serigne ñu joxoon ko ay pouvoir waaye itam bokk na ca la ñu ko joxoon lu jëm ci seen signature bi nga xam ne ni signé woon nañ ko ak Sonacos Sonacos di leen jox gerte ñuy segal diwlin ji di ko jox ak di ko jox ràkkal ji nag jamono ji mel na ni ña ngay fësal ni soxna maam xari Mbàkke daa jaawale li nga xamante ne nii moom moo di signature signature kuréel gi ak signature boppam. Euh, soxna maam Xari Mbàkke mi nga xam ne moo fi nekkoon ci ñun ndax ñun dañoo aadawoo ci fii ñu nekk ci environnement bii ñu wër saa yu njabootu sëriñ bi ñëwee suñuy dara ji ñu sippi ko jiital ko tekk ci suñ kanam yàlla dogal bi mu ñëwee donte ni membre la woon ab actionnaire la woon ci ñun directeur général bi sëñ Baara ma nga fa woon euh, PCA bi mi ngi fi amul woon benn place pour pour jiite loolu. ñu tàmbali bi ñu ñëwee ak Sonacos it moom ci jëmmi boppam mu proposé ne Sonacos dafa ñu proposé. mooy signé contrat bi. nit contrat bu toll noonu ak njëriñ lu am looloo xam ne 12000 employés am nañ ko suñ gannaaw mu nekk ci gannaaw nit ñoo xam ne xëy na mën nañ ciy liggéey ci biir nawet bi. plus de 12000 emplois yoo xam ne ñu ngi waroon a dem ci àll bi bayi te mën nañ cee gis seen bopp ñeneen li leen ñu mën ko téye seen bopp loolu duñ ko xañ duñ ko xañ mboolem suñu emplois ci lañ ko defal délégation de pouvoir ci le 8 8 juin boo xam ne sëñ Baara Mbacke mi moo ko defal entre Sonacos ak wax ne délégation de pouvoir bi ñu defaloon soxna si ñun bi ñu demee ba nga xam ne am nañ jafe-jafe te amuñu solution suñu diggante ak moom te délégation pouvoir la boo xam ne dañu ko def entre Sonacos ak Rasiaat dañoo bëgg Sonacos buy liggéey mu liggéey ak ñun directement parce mooy liggéey soxna si moom dong compté wut pour liggéey instructeur bi tënk 88 membres yooyu xam ne 12000 employés moom lim ci am wala ñene ñaari nit wala ñett ni ñam àndal amuñu ci lu àgg 30 personnes la ca ko yor ñooñu ñoo am majorité pour ànd ak liggéey ak Sonacos. xam nga loolu du dëgg soxna maam Xari Mbàkke nekk suñu njiit man ma nekk membre RACIAT ci biir kuréel googu ngay tudd tay tey vingt 89 membres ñoo ci am 89 membres dama bëgg ñëpp déglu ko ba mu leer 59 yëpp ñu ngi ñëw di liggéey ak soxna si liggéey bu normal li ngay wax nii juróom-ñetti nit ci ci biir membres yi ñoom ñoo koy wax te ñooñu seen intérêt personnel moo tax ñu di ko wax yooyu le kàddu nag mel na ni kuréel gi di Razia tàbbalu ko ci nopp tëx ndax général Diène Gueye mi nga xam ne moo yor kàddu soxna am xari Mbàkke ngay fësal ne kuréel googule li nga xam ne ñu ngi koy fësal ne ay kàddu dara du ca dëgg la nga xam ne ni moom moo ca xew nag moo di ndaa am ay luubal yoo xam ne ñenn ca ñoom dañu koo def te bëgg ñu daal di koy nësësal te loolu le soxna am xari Mbàkke du ko nangu benn yoon moom kay li xew mooy formé nañ seen kuréelu juróom-ñetti nit yàq jàpp nañ ne moo gën a yomb defar moo tax ñu topp rajo yi fu nekk ñu nekk fa wax waaye ñun duñ leen déglu soxna si nag yëkkati làmmiñam duñ ko may sax mu wax ci parce que ñun ñi nga xam ne ñoo topp ci ginnaawam te xam li muy liggéey xam mu ñu jariñ xam bi mu ñëwagul jafe-jafe yi ñu nekkoon ak bi mu ñëwee yombal gi mu yombal suñu liggéey ñun ñii ñooy taxaw wax ak askan wi wan leen ñoo ñu di wax seen intérêt personnel moo tax ñuy wax waaye li ñuy wax dara du ci dëgg. si moom liggéeykat la da leen a defar mise en zéro ne leen li ngeen yore fay leen ko xam nga nit boo dee boo jubee di liggéey jël alal jël alal di ci liggéey ñu ne la kaay waxtu wi nga war a fay jot na loolu jërul coow bu fekkee da jub nañ fay problème bi yëpp mooy ñàkk a fay ak di sàcc am na ci ñoo xam ne dañoo sàcc rakkal jaay ko ñu jàpp leen ak mu lu ci mënti am njaw ngi wéy desandi wu xam biir ci diggante ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa Rasiaat ak soxna maam xari Mbàkke ndaxte bu soxna maam xari ne kuréel gii moom moo ko créé waa Rasiaat di fësal ne mboolem pouvoir boo xamante ni joxoon nañu ko soxna si ñoom nangu nañu ko te jamono ji sax soxna si bokkatul ci góogile kuréel waaw délégation de pouvoir bi ñu ko defoon koo jël nangu nañ ko léegi fépp foo xam ne dafay wax waxiwu fi turu Rasiaat rasiyaat moom sëñ Baara Mbacke ak sëñ Mbacke la ñëw président conseil administratif ñoom ñoo am délégation xoolal xam nga bala ngaa dindi nit si dara da xam sax yow nit ki ñoom nan lañ mën a dindee soxna si loolu mbir soxna si moo créé association bi tuddee ko rasiyaat moom ko dugal leen ci ñoom seen jëmmi bopp ñoom ñëpp ñu dem ba si biir li ñuy wax naan boo yoree sa koy ba mu màgg kay bu yoree ay béjjën yow lañ njëkk a mbëkk moo si am mais ñoom ñi ñëpp xamuñu woon benn organisation kenn ku ne ak ndànd fay-fay la woon kenn ku ne da daan nekk si sa ruq di liggéey li liggéey mais soxna si moo ñëw dajale leen def leen groupe ne leen kaay leen ñu organiser wu pour man cee am dara mën a jariñ askan wi organiser leen bañ toll fii ñu toll ñuy cëpp cëppi dañ koy ak lu ci mënti am ci coow li nga xam ne nii am na ci diggante Raziane ak soxna maam Xari Mbàkke te yàggul dara jëriñ ji nga xam ne moom moo gàlloo lépp lu jëm ci wàllum commerce ñëwoon ci dëkk bu sell bi ci Touba ngir daal xool li nga xam ne moom moo di le boobule contrat waaye itam di fësal li nga a indi ni ay njariñ ci biir dëkk bu sell bi di Touba waaye itam ci réew bu Sénégal yàggul dara ab fëlxoo ak bréero daal di dox ci diggante maam Xari Mbàkke ak waa Raziane ak lu ci mënti xew coow loolu lee du jëriñ kenn ci ñaari wàll yi muy di soxna maam Xari Mbàkke ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa Raziane jamono ji nag ñuy xaar fan la wànnante di mujjee bëtam waaye itam di xaar tontu ki nga xamante ne ni moom moo di Pape Dieng waaye itam atteb jëwriñ ji nga xam ne moom moo gàlloo lépp lu jëm ci wàllum commerce te itam contrat boobu li daal di jaaroon ci loxoom